sëriñ boo yegg si na mu Cheikh Mat Fadal Mbakke moom la Cheikh Mamadou Bachir jëli woon mi ngi fekk rakkam yëpp ñëpp a ngi toog nii ci suuf rakkam yëpp a nii ci suuf mi ngi ànd ak Cheikh Mahamadou rakkam Cheikh Mamadul Bachir mu Cheikh Amadul Murtada sëriñ Amsatu mu Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Bachiru Cheikh Abdoul Khoudoss sëriñ Moustapha Cheikh Abdoul Karam boole leen ak seen koso taawam bii ñu may sëriñ bi mu ñëw ñu may Cheikh Mamadul Bachir mu ñëw mbakke yaaram ñu ngi lay ñaanal cheikh mahamadul muntaxa sa mag ju baax ji moo taamu nii de nañu may sëñ basir mu ñëw nii wala mu toog nii ci kaw fii waaw sëriñ bi na ñëw fii ci kaw fii moo gën ci kaw na toog ci wat cheikh ma ci wat sëriñ aboo ñu may Cheikh Modou Bachir mu toog waaw ñu ñaan nag ñu si des ñëpp mën nañu wàcc tribune bi sëriñ Moussa Laaji Baara sa taaw bi moo lay nuyu sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mahamadan mi ngi nii toog ana euh, Cheikh Sidi Makhtar Ka ñëwal nga jege si ni yàgg Abibu Mbay waaw ñu may nag télévision yi ñu ne ci kaw tribune bi ñu mën a jël gisuñu li ñuy jël léegi ñu ngi bëgg tàmbali waxtaan wi yaar Mbakke sa mag ju baax ji Cheikh Mouhamadul Muntaxa moo yebal Cheikh Mouhamadul Bachir Sarak ji ni ko cérémonie bi sëriñ Abo sama rakk ji rek moo ma ci doy sarak ju baax ji ni ko moo newoon suuf yegg leen suuf dañoo bëgg a tàmbali waxtaan wi egg leen suuf waaye gis nga bëggug Seex Ahmadul Muntaxaa ni mu mel fu mu la yabaloon nga dem fa fu mu la yabaloon rek nga dem fa waaye bi ñu demee ba def tant tant bi ba def cérémonie bi fi koy def mu ball Cheikh Modou Basir Sarake ji ni ko ah, Mbakke yow kat sa yéene ci sëñ moo yegg léegi nañ ko fekk kër sëñ Fallu moo tax ñu fekk si la kër sëñ Fallou première màggal Touba it di sëñ Fallou sa bàyyi wootee fii lañ defoon tribune bi na la sant na la ñaanal na yàlla waaye si gis nga sarak yëpp a ngi nag toog suuf kon ma ni egg leen suuf dañuy bëgg a tàmbali waxtaan yi ministre de l'intérieur ñëw na ak membre gouvernement bi daan ci dugg waaye Cheikh Abdoulaye Gaynde Fatma ministre conseiller ak Abdoulaye Ka maire Touba ñoo leen délégation yi ànd ak ministre bi nag yëpp bind nañ ko président de la république li mu am lépp ñëw na Touba tey barki dem bit la fi jóge premier ministre barki dem la fi jóge kon ñu déglu ñu yegg suuf bu ko defee ñu tàmbali waxtaan waaw ñu bàyyi tuuti ñu déglu tuuti sëñ Muntaxa Géey bisimilah ñu ñu teewlu xasida yi nag Mbàkke lislaam bi yëpp ñëw nañ benn këru diine bu des amut la sëriñ maam ñu woon kuy wax baatub laa ilaha illallah bu leen ko noonu waaye am lu ci dolli ku ren ñaari rakkaa yi tey la 5 septembre moom lañ doon julli ca ndar waaye sëñ Ahmed Fall ak waa ndar ñëw nañu fii lañ koy jullee loolu Mbàkke fekk si nañ la su ko defee nag ñu déglu waaw ba baax na noonu jub na kon bisimilah nun ñëpp ñu déglu Cheikh Sidil Makhtar Ka su noppee membre membre gouvernement bi fi nekk ak kor euh, diplomate yi fi nekk yëpp ak ambassadeurs yi bu mbay sama rakk bind na ko dana ko jàllale kon ana na Cheikhouna sëñ Cheikhouna Alaaji Baara ñu ni nga ñëw ñu jàng alxuraan yegsil moo ne mooy koosil ba jidda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 سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا وكم أهلتنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم léegi nag ñu ngi tàmbali waxtaan wi ñu déglu Cheikh Sidil Maxtaar Ka góor yàlla su ko defee nun ñépp ñu àndandoo déglu ko bisimilah Cheikh Sidil Maxtaar bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب أصحاب السماحة المشايخ أصحاب الفضيلة العلماء أصحاب الفضيلة آل الشيخ الخديم معالي الوزير الممثل li faxaamati raïsil jumhuriya euh, sayid Antoine Félix Abdoulahi Diome wal waftal muraafiq euh, asxaaba saadati aada silki diplomatie ayuhal ixwatu alxaadiruuna min kulli fajjin amiq ayuhal muriduun أيها الإخوة ممثل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجلس المدني أيها المريدون وأيتها المريدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم جميعا على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة wa wujudukum maana al yawm yujassidu ruuxa alwaxdati bayna almuslimin maa al ixtilaafi al intimaati al madhabiya wal mashaarib al fikriya qaala shaair warisna min al aabaai xifda widaadikum wa naxnu ida mitna nuwarisuhu al abna wa yaqulu abul mahamidi alcheikhu ahmadu alxadim almuminuuna ixwati walmuminaat li axawaatun wa xayaati xasanaat ayuha alxaflu alkarim inna taxlida dikra alxaybati albaxriyati lahu dalaalatuhu wa rumuusu wa yaqturu duruusan wa cibara wa yacuudu bina ila tasafuxi awraaqin xaalika fi taariixi alinsaaniy laqad waajaha alcheikhu ahmadu bamba القوة الاستعمارية من خلال جهاد سلمي مبني على الصبر الجميل والصلابة في العقيدة والثبات على المبدأ والمصابرة على الحق وتربية المريدين على العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي فقابل الإساءة بالإحسان وعفى عن, وعفى عن الظالمين يقول ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاساه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد بلاء وجهاد ضعفا أيها الحفل الكريم إن حياة الشيخ أحمد بامبا كلها wa aqwaalahu wa afaalahu wa axwaalahu tajsiidun xayun li isdaai shukri ila rabbihi azza wa jalla yaquul yashkuruhu kulli bi gayri dadani ila jinaanihi wa safa daydani laka shukuri rabbi min muharrami li xatmi zil xijjati xatmi lxurumi wa yaquul shugiltu bi shukuri an tazakkuri ma qad jara bayni wa bayna al askari شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلا كليتي استغنت عن اشتكائي وكل ما يجر للبكاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu sant yàlla sunu borom julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ñi ngi nuyu sëriñ bii toog muy sëriñ abul baraka ak njabootub cheikhul xadim ñoom ñi fi teewal saaxibul fadil cheikh Mouhamadul Muntaqa di nuyu kilifa diine yëpp genn kër desul di nuyu ñi nga xam dañoo jiite ay mboolooy lislaam liggéeyal diine di nuyu itam euh, ministre bi nga xam ne moo fi teewal ki jiite réew mi muy monsieur Antoine Abdoulaye joom ak mbooloo mi mu àndal di nuyu itam gan ñi nga xam ne ñooy koor diplomatique nekkal fi seeni réew ngir rattaxal seen diggante réew ak ak Sénégal di nuyu itam parti politique yëpp bàyyiwuñu benn di nuyu itam jaamur yi nga xam ne dañoo tëdd njaaxaanaay bokkuñ ci benn parti di nuyu itam njabootoog mag ñi nga xam ne seeni maam ba dara dul dara seeni maam ñoo àndoon ak Cheikh Ahmad te mosu ñoo wàcc tànk yi seeni maam jaaroon waaye itam nag di nuyu mboolem mbokk yi teew ci bis bi ak ñi amoon yéene teew te mënuñoo teew di leen sant di yëkkati kàddu yoo xam ne nag ci ndigalu sunu kilifa gi mu Cheikh Mouhamadul Bachir di sant mboolem ñi teew teew gi ngeen teew am na lu mu wane mooy day wane ne jullit ñépp benn lañu seen ët mën naa wuute seen naanukaay mën naa wuute waaye ñépp benn lañu te lii du tey ci ay maam la woon ak i baay wax naa ko léegi waris naa min al abaai xifda widaadikum wa nahnu ida mitna nu warisuhu l abna te Sëriñ Tubaa nee na yéen yéen ay mbokkam bokki pas-pas ñoo ay mbokkam al almu almuminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat kon yéenay mbokki pas-pasam ñëw ngeen ci bisam di ko santale yàlla kon sëriñ bi mi ngi leen di mi ngi mi ngi leen di sant mi leen di gërëm bis bii ñuy fàttaliku nag ku xalaat xalaat ca ginnaaw da nga xam ne bis la woon yu metti bis la woon yu tiis ndax dafa am ay jàmbur yoo xam ne dañoo jóge bitim réew joox ci réew mi àndaale seen lépp nag seen culture seen civilisation seen xam-xam seeni gànnaay seen lépp ñëw not sunu réew bi ñuy not réew mi nag am na mag ñoo xam ne dañoo taxaw jàmmaarloo ak ñoom ndax mënuñu nangu kenn ku leen moom ku dul yàlla mënuñoo tam wàcc yoon wi nga xam ne mooy yoonu yàlla Sëriñ Tuubaa nag jàmmarlu ak ñoom ñu koy teg ay coono mu di ko muñ kon ñoom ñi ñëw dañ fay fekk koo xam ne gaynde la ci fit gaynde la ci jom gaynde la ci ñeme mësta wàcc yoon fi yàlla bëgg mu jaar fa rek foofa lay jaar mu jàmmarloo ak ñoom muñ muñ ko rafet téye pas-pasam teg tànkam fa ko sangam ba tegoon alayhi salaatu wasalaam di yar ay taalibeem ci sàkku xam-xam ak jëfe xam-xam ak jaamu yàlla ak defar seeni jikko muy makaarimul axlaaq ñu tooñ ko tooñ koo xam ne ñépp ko mën a seere ne dañ koo tooñ waaye tooñ yiñ ko tooñ moom dafa jéggale dafa baale ndax nee na man mi ngeen jàpp génne ma samam réew tas samay kër tas samay daara tas sama mbooloo da ngeen maa tooñ wa zalamtum alabda alladi laa yantaqim li nafsihi mujahidan lil muttaqin axrajtumuhum min diyaarihi bila xaqin kon dañ koo tooñ waaye dafa jéggale yëmul ci jéggale dana taalibe yi na ngeen moytu di tooñ na ngeen maytu di moytu di fayu kon taalibe sëñ ta tooñ sëñ ta fayu daal na kuy tooñ du mucc kuy fayu tam du ñoŋ mbokk yi sëriñ Tuubaa nekkam gépp xam yëpp jëfam yëpp mbiram yëpp dañu doon sant yàlla yashkuruhu kulli la wax bi xayri dadani ila jinaanihi cant goo xam ne dara ci safaan du ca rax fukki weer yeeg ñaar yëpp da ko doon sant yàlla laka shukuru rabbi min min muharrami li xatmi zil xijjati tam xarit ba tabaski da koy sant yàlla li tax nag mu jàmmarloo ak tubaab yi mënuñ ci moom dara mooy moom dafa wax ne yaakaarul kenn ku dul yàlla ragalul kenn ku dul yàlla fa lastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jàlla yuxniini wa yunjiini li may ragal yàllaa ko mën a fànq li ma bëgg yàllaa ko mën a faj kon du ma yaakaar kenn du ma ragal keneen dem na sax ba ne li ma war lépp def naa ko ba def naa loo xam ne sax mënoon naa ca bañ a àgg lahu iltazamtu ma alaya yalzamu wa raada li luzuma ma yalzamu moo tax nee na yàlla mi ma jox sama lépp jox na ma loo xam ne as mbu mbuur du ko am as mbuur ndax yàlla mooy buur bi ku dul yàlla as mbuur nga lillahi jalla yadi wal qalbu ma badani wa saaqali fawqa ma inda sulaytayni moo tax sëñ mu Ka waxoon ne kënoog fetal ak karawaas ak jaasi du tee sëriñ Touba di way jinaas yi jinaas sëriñ nee na man sant laa tal waaye di fàttaliku li xew sama diggante tubaab bi taluma ko shughiltu bi shukuri an tazakkuri maa qad jara bayni bay na al askari wax na ne sax di fàttaliku loo xam ne day tooyal xol te bu xol yi tooyee bët yi tooy matu ko moo tax mu ne kon nañ sant yàlla ci bis bi saa bis bi ñëwee nag sëriñ bi yëkkati ay kàddoom woo ñëpp woo taalibe yi woo wëllëre yi woo bokkam yi woo dëkkandoo yi bitim réew dañuy ñëw ren li ñëw mat na téeméeri délégation te am na ñoo wax ne li teew Tuubaa ci màggal gi jege na 6 millions defe naa ne ajug màkk sax matul 6 millions kon ñi nga xam ne ñoo teew muy délégation yi sama mbokk sama xarit sëriñ Abibu Mbay moo may moo may aw moo koy lim ndax sëriñ bi dafa xam ne xaw naa diis waaye danaa ci jukki rek alxadra almalikiya waa kër maam alxaaji malik lu xew tuubaa kenn kenn kenn ci ñoom du des sëriñ Babacar Mansour day yable yabal na Sidi Ahmad si Cheikh Sidi Ahmad si ak Dabbaax moom suñuy waajur alxaaji Abdul Aziz si mu ànd ak mbooloo mu bari al usra al omariya euh, xalifa bu nekk Louga yabal na Cheikh Ahmad Tidiane Taal waaye itam Thierno Madane yabal na Thierno Omar Taal kon ñoom itam ànd nañoo ànd nañoo mbooloo waa Njaasaan xalifa ba jàppal na cheikh abu mouhamad al kunti waa laayeen duñ fi gan si na isaa ngi ni jàkkarloo ak sëriñ bi canaba ak lew na ñeseen ak Medina Baye ñoom ca fan yële lañu ñëw dañoo teel a ñëw teel gis sëriñ bi teel a ziyaara teel a wàññiku opposition bi tam sëriñ bi wax na ne ñoom ñëpp ñëw nañu waaye dañ cey jukki rek maître ab Ablaye Wade yabal na mbooloo buggaan mi toog di taalibe ñëw na ànd ak mbooloo waaye commune bu Touba maire Touba muy Abdou Lahad Ka def na ci bis bi loo xam ne euh, at mu jot sëriñ ba Basiiru da koy seeral ñëpp waaye at mu jot mu yokk loxoom def lu raw la nga xam ne moom la daan def waaye kuy liggéeyal sa bopp doo sonn kon lii mooy kàddu yi nga xam ne moom laa doon ubbee dalal gan ñi ci turu sëriñ bi ak ndigalul sëriñ bi yéen ñëpp sëriñ bi mi ngi leen di tàllal loxoom di leen di dalal di ubbi xolam bala moo ubbi ay loxoom di leen sant di leen gërëm di jox nag sama rak sëñ bu Mbaye moom yi nga xam ne mooy lim euh, euh, délégation yi defe naa nag tey di la 5 septembre hmm. loolu moom dama koy bàyyee ak sëñ Bachir loolu moom du ma ci dugg waaye ku ne xam na tey bis bi bés la ci bés yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Cheikh Sidil góor yàlla léegi nag ñu ngi jox kàddu gi Abibou Mbaye mu ñëw ci délégation yi waaye sëriñ bi presse bi yëpp ak seen di directeur ñëw nañu waaye kii yegg suuf nag yaakaar la mu di bugaan gi daani moo tax mu toog nii ci sa wet ndax taalibi sëriñ Tuubaa la aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëfe borom Touba ñu ñaanal sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñaanal sëriñ Abu Bakar Mbàkke mii fi toog di kilifa jotaay bi mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp ñu sof suñu kàddu rek ci li nga xamante ne bii moom la sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar Ka yëkkati ak sëñ Ablaye Mbaye Peex fas yéene limal leen délégation yi nga xamante ni bii ñoo fi ñëw muy euh, Cheikh Sidi Wuld dara xalif général Xaadiriya moo ko fi yabal Ahmed ibnu Mohamed Abdourahman Zawiya Cheikh Ahma ibnu Vatan daayira Moustarchidine wal Moustarchidaat Imam Malick Mbaye teewal leen Mohamed Mbacke Ndour teewal jamaahatu Ibaadu Rahman waa Guy Yat sëriñ Moustapha Haydara moo leen teewal Pete Warak alaaji sëriñ Jibi Ndiaye moo leen teewal Nimzat Chérif Atxaana moo leen teewal waa Ndeer Naar sëriñ Mouhamed Julit Kunta moo leen teewal Taslima Casamance El Hadj Khalifa Diaby moo leen teewal kokki sëñ Ahmad Lo sëñ Ahmad Mokhtar Lo moo leen teewal mbëlëxe sëñ Aliou Dia moo leen teewal Morolan Serigne alfa Thiombal Pire Serigne Maodo Sy famille Serigne Abbas Sall Serigne Abdallah Sall askay Mohamed Alin Mbay moo leen teewal waa kër sëñ Ahmadou Mbaro Njegéen ca Thiès Serigne Dame Njegéen moo leen teewal Ndànk Kunta Serigne Aliou Mokhtar Kunta moo leen teewal association des familles religieuses Serigne Ousseynou Sakho Bamba moodi ki leen teewal sëriñ Mouhamad Sall ONG ICO Moustapha Pouy moo leen teewal association des imams et prédicateurs du Sénégal Mohamed mbay sëriñ Kokki délégation El Hadji Mohamed Xaban Diop Pire Birane Cissé moo leen teewal Médina Gounass Chérif Alassane Ba di doom ci xalif sëriñ euh, mooy chef délégation bi imam Fofana Pakaw imam Pakawus Fofana moo leen teewal famille Tafsir Maba Jaxu Ba Sëriñ Abdou Ba moo leen teewal Kuyli alfa Moustapha Ba moo leen teewal Jaamal Sëriñ Ousmane Cissé teew na fi Ourou Madi Cerno Alpha Ba teew na fi Digaan Sëriñ Ibrahima Sow teew na fi Sokone Sëriñ Abdoulahi Dem teew na fi Wakaam Sëriñ Jibril Salaam Guèye moo leen fi teewal Nguraan Cheikh Nasek moo leen fi teewal association des imams et oulémas du Sénégal imam Omar Diène moo leen teewal Guet Ardo Cheikh Aljuma Ba moo leen fi teewal famille Jimbira Cheikh Mouhamad Jimbira moo leen fi teewal famille Maam Makhtar Kala Dramé Cheikh Aliou Dramé di ambassadeur bu islam ak Serigne Mokhtar Dramé moo leen teewal Maka Koulibanta Mouhamad Lamine Diaby moo leen fi teewal Bamba Sourang euh, njabootam ki fi teew di Pape Sourang AIS di ab ONG Cheikh Babacar Cissé moo leen fi teewal Ngumba Ngéewul Cheikh ak Cheikh Salibouya ñoo fi teew famille El Hadj Tidiane Niang Ibrahima Jumba ñaŋ moo leen fi teewal Ahlul Laay bu Ndànd Serigne Moustapha mbay moo leen fi teewal Medina Baye Mass Gambi Mouhamad Tahir Ka moo leen fi teewal famille El Hadj Mbacke Tandiang sëñ As Tandiang moo leen fi teewal daaru salaam ñooro El Hadji Ndaw moo fi teewal Léona Kaneen imaam Ousmane Ndiaye moo fi teewal itahat jami riya xuraaniya Moustapha Cissé fi teewal famille Serigne Thierno Kandji Serigne Thierno Kandji moo leen fi teewal waa Paal Serigne Abdou Khadir Ngom moo fi teewal waa kër Alxaadi Amar Naar Fall El Hadji Maodo Malick Fall fi teewal tafsir Mor Ndiour imam Mohamed Thioune moo ko fi teewal Dimashqa Ousmane Dramé moo leen fi teewal kër El Omar Dramé Cheikh Ibrahim Dramé moo leen fi teewal El Hadj du Fata Sakho El Hadj Ibrahima Sakho moo leen fi teewal association des imams de Pikine Dame Ndiaye moo leen fi teewal association des imams du Sénégal imam Cheikh Thioub moo leen fi teewal Fulaadu Casamance Mouhamadou Lamine Cissé moo leen fi teewal Fulaadu bu Dakar Cerno abudu Saydi moo leen fi teewal tafsir maam abdu Ñang sëriñ Munir Ñang moo ko fi teewal famille Serigne Makhtar Gajaga Serigne Cheikh astu Kanji moo ko fi teewal na Kaneen imaam Ousmane Ndiaye moo leen fi teewal Cheikh abdu Kader Kan Abdou Aboubacar Salaam moo leen fi teewal famille El Hadj Mbay Pape Assane Mbay moo leen fi teewal jamaa Hizbullahi imaam Ibrahima Kan moo leen fi teewal Kédougou ñu fa bàyyi ko Cheikh Yoro Maar moo leen fi teewal famille Chérif Younus Aydara Chérif Almaami Waar moo leen fi teewal Cheikh Sidaadi Sow waa Lubudu Cheikh Sidaadi Sow moo leen fi teewal Rumde Salif Sow moo leen fi teewal Medina Souane oustaz Cheikhouna Souane moo leen fi teewal Mohamed Lamine Diop xalifatu Ahmadiya Tijaaniya bu Rufisque moom tamit teew na fi Serigne Cheikh Samb ONG Al Ansar bu Mbour moom tamit teew na fi kon loolu mooy délégation yi nga xamante ni bii ñoo jóge ci kër kilifa diine ci Sénégal euh, ñëw ngir santale Serigne Touba teew ci bis bi nga xamante ni bii mooy bisu màggal gi. ñu jublu nag ci délégation gouvernementale bi nga xamante ni bii ñoo jóge ci son excellence le président Macky Sall euh, te ki nga xam ni moo ko jiite di monsieur le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome ministre de l' ak ki nga xamante ni moo di faatu Diané moom la àndal ministre de la femme. mu ànd tamit ak Abdou Karim Fofana ministre du commerce ànd ak tamit ak Gallo Ba ministre de la fonction publique ànd ak Pape Amadou Ndiaye ministre de l'artisanat ànd ak euh, biram Faye di ministre auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité de proximité ànd itam ak Isma Dioum di ministre conseiller ànd tamit ak Cheikh Abdou Lahad Gaynde faatma di ministre conseiller ànd ak gouverneur Ibrahima Fall ak i tamit préfet bu Mbàkke di Xaadim Aan an tamit ak sous préfet bu Ndaam di Babacar Ibra Ibra Maar ak ki nga xam moo di Serigne Chouaïbou bu ci délégation boobu la bokk bu jugee foofu ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy délégation yu jugee bitim réew mu mel ni réew yi nga xamante ni bii teew nañ tey ci jamono bii ci euh, bisub Serigne Touba bii toll nañ ci fukki réew ak juróom-ñaar yoo xamante ni bii euh, ay délégation bàyyi na fa bàyyi ko na fa lu ci mel ni Mauritanie di gànnaar ku ne xam na ni euh, foofu day barab la boo xamante ni bii ku ne xam na fa la Sëriñ Tubaa nekkoon moom la ñuy wax ardu saalihiin te ku ne dégg na ci mbindum Sëriñ Tubaa muy tudd réew réew moomu ndax fa la nekkoon inna lazina ila sarsaara xat xasado ziarati faaruqu daare ni aw zara loolu yaakaar naa gànnaar la kon teew nañu délégation président de la république teew na fi Tunisie teew nañ fi Turquie teew nañ fi États-Unis teew nañ fi Algérie teew nañ fi Irak teew nañ fi Guinée Conakry teew nañ fi Égypte teew nañ fi Maroc tamit dinañ ci ñëw délégation roi Mohammed VI dinañ ci ñëw teew nañ fi Côte d'Ivoire teew nañ fi Nigéria teew nañ fi Burkina Faso teew nañ fi Guinée Bissau teew nañ fi Mali teew nañ fi libi teew nañ fi Italie teew nañ fi Émirats arabes uni teew nañ fi Suisse teew nañ fi loolu di réew yi nga xamante ni bii Pakistan tamit teew na fi kon réew yi nga xamante ni bii teew nañ fi jóge ci mboolem continent yi ngir santale ci Serigne Touba suñu borom mu mel ni am na ay délégation yoo xamante ni ay invité yoo xamante ni dañoo ñëw ci màggal gi ñu jot ay invitation ñëw itam jóge seeni réew comme ni ma ko waxoon léegi rek lu ci mel ni gànnaar moo Mauritanie yaakaar naa sëñ bi saa su ne mi ngi ñuy euh, wan euh, xéewal li nga xamante ni bii dafay jóge gànnaar di ay giléem yu mag a mag a yoo xamante ni bii président bi da koy yabal indi ko jox xal général des Mourides yaakaar naa saa su ne Serigne Bass mi ñu koy wan Serigne Bass Bassirou Abdou Khader Mbacké saa yu ne mi ngi koy wax di wax diggante boobu nga xamante ni moo am diggante gànnaar ak Sénégal kon waa Mauritanie président Mohamed Ould El Ghazouani euh, yabal na délégation Cheikh Wuld Zayni Wuld imaan di président bu Muntada Hulama Afrikiya li nag moom dafa di ay organisation yoo xamante ni bii dañoo ñëw ci màggal bi am ay institution yu mag a mag mag yoo xam dañuy yabal seeni seeni seeni délégation am ay professeurs universités yu mag a mag a yoo xamante bii dañuy ñëw ci màggal gi ndax ku xam na ni màggal gi liñ ci wax ci wàllu bernde jaamu yàlla waaye am na loo xamante ni bernde ruu la te ñi nga xamante ni bii ay borom xam-xam lañ dañuy ñëw ci bës bi ngir li nga xamante ni moom la dëkk bii yellool muy dëkkub xam-xam di dëkkub leer ñi nga xamante ni bii ñëw nañ fi ñu mën a jàngat bu baax a baax a baax ak seen délégation boobu ci ay jotaay yi xam-xam kon ñooñu loolu waral seen seen teewaay ku ci mel ni Cheikh bi Ben Mansour di professeur université chargé de mission au ministère affaires étrangères Euh, au ministère affaire religieuses bu Tunisie teew na Cheikh Mohamed Hajan Al Hadid jóge ba Turquie moom di secrétaire général bu International Academy of Sufi Scholars moom tamit teew na muy centre international bu mag buy jàngale wàllu soufisme ca réewu Turquie réewum Amérique ki nga xam ne moo di mufti bu Californie jóge na moom tamit foofu Los Angeles ñëw ñu koy wax docteur Bilal Ben Ismail Al Halak Turquie ba tey Mohamed Zahid Gul moom di ab gëstukat di président bu journal bi ñuy wax Sharq al Hawsat ci langue turque moom tamit teew na fi docteur Mohamed Yahya al Katani jóge Égypte moom imam la waaye professeur la ci al Azhar al Sharif di université bu mag boobu la Irak docteur Anas Mahmoud Khalaf al Hishawi professeur université la di imam ca Bagdad moom tamit teew na fi bu dee réewum Guinée docteur El Hadji Mahmoud Cissé di ancien ministre de l'intérieur teew na fi bu dee Algérie Hamza Al Sidi Cheikh ancien ministre la di président fondation bi ñuy wax fondation Sidi Cheikh di porte-parole confrérie Cheikhiya Chazaliya moom tamit teew na fi ki nga xamante ne bii mooy docteur Ahmed Belhaj Hayit Hourham moom tamit mi ngi jugee réewum Maroc moom bind na sax ab livre boo xamante ne ab téere boo xam ne mi ngi ko tuddee al muridiya min at tarbiya bil irada kon loolu mooy wane ni rek njàngaleem Sëriñ Tuubaa àgg na fu ne ba ci réew moom ci Maroc mu am benn kuréel goo xamante ni bii émirats arabes unis Maroc ak Mauritanie ñoo ko séq te nga xamante ni bii mooy président bi di Cheikh Abdallah benn Biya moom dafa yónnee ab délégation boo xamante ni bii lu tolloog ñetti nit ñoo ca ànd ki ko jiite di Mohamed Mahjoub benn Biya ñu fàttale rek ni Cheikh Abdallah Ben Biya moomu moom mooy président conseil des émirats pour la fatwa et du pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes réewum Côte d'Ivoire tamit Cheikh Ousmane Diakité moom mooy njiitu conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques bu Côte d'Ivoire taxawaayam ci dina am solo yabal na Cheikh Issouf Doumbia Pakistan waxoon nañ ko léegi am na xam boroom xam-xam fu bàyyi ko ñu koy Abdullah Shah al délégation yi nga xamante ni nag euh, ñu ngi ñëw te loolu liggéey bu am solo bi nga xamante ni bii Serigne Cheikhouna Alaaji Baara Mbàkke Falilu moom moo koy liggéey muy commission des relations extérieures bu comité d'organisation bu màggal bi mu am délégation yu bari yu jóge lu ci mel ni Nigéria délégation Nigéria bi euh, Hachim Ibrahim ci la bokk Jimo Cheikhu Abdul Khadir ci la bokk Aminou Baba Sharkin Dawaki Dan Agundi ci la bokk Oumar Kani Aliou ci la bokk Assane Ali ci la bokk Salati Ahmad Abdullah ci la bokk délégation bu jógee Côte d'Ivoire Karamoko Mamadou ci la bokk Bamba musa ci la bokk Bakayoko Daouda Ben ci la bokk Karambita Umar ci la bokk Karabinta Umar ci la bokk Kassim Sanogo ci la bokk Koulibaly Mamadou ci la bokk Karamoko Mamadou Samoukade ci la bokk Diomandé Mohamed ci la bokk délégation bu jógee Burkina Faso docteur Sana Cheikh Khaled ci la bokk El Hadji Moussa ci la bokk moom mooy président communauté musulmane euh, bu nekk foofu ci Burkina Faso bu dee wàllu Guinée Bissau xalifa Cherifu Sidi Bayo ci délégation bi la bokk docteur Antonio Iyahia Dia directeur administratif et financier bu élection yi foofu ci réew ma ca la bokk bu dee Mali ambassadeur docteur Mahmoud Mohamed Arbi secrétaire exécutif ARDCT ci la bokk ci délégation Mali bi Yahya ay dara président commission logistique ci délégation Mali boobu la bokk professeur Mahmadan Mahamadou ñu koy wax xammu ci la bokk réewum Ouganda ku ñuy wax Kajimu Abi Kajimu Abib ci délégation boobu la bokk réewum Libi Kalla Hussein Al Sherif ci la bokk Altibawi Adamar mi ci la bokk Suwayl Ha Mohamed ci la bokk Iqwiniya Abdou Salam ci la bokk Abdel Hafiz Ibrahim Ali ci la bokk kon muy waneen rek délégation yooyu ñu ngi bàyyi ko Afrique Asie Europe ak Amérique lépp rek ni koy waxoon léegi rek ñëw ngir bokk ci lépp li nga xam ne ay waxtaan la yoo xamante ni bii jotaay xam-xam la indi seen contribution ci li nga xamante ni bii mooy thème ren bi ak euh, màggal gi. ñu ñëw nag ci li nga xam ne mooy corps diplomatique bi ñi nga xamante ni bii dañ fi teewal seen réew fii ci Sénégal di ay ambassadeur di ay conseillers ñoom ñëpp nag ñëw nañu lu tolloog euh, juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay euh, délégation ñëw nañu bu dee ambassadeur bu Cameroun ñëw na moom ku ne xam ne moom mooy le doyen di corps diplomatique moom teew na république populaire et démocratique de Corée seen ambassadeur ñëw na Sierra Leone seen ambassadeur ñëw na Venezuela seen ambassadeur ñëw na Iran seen ambassadeur mi ngi fi Rwanda seen ambassadeur mi ngi fi Afrique du Sud seen ambassadeur mi ngi fi Arabie Saoudite seen ambassadeur mi ngi fi Japon seen ambassadeur mi ngi fi Soudan seen ambassadeur mi ngi fi Union européenne ambassadeur am fii mi ngi fi am na kenn ku mu àndal Ghana seen ambassadeur mi ngi fi Vatican ñoom tamit teew nañ fi ku ne xam ne ñoo représenté jàngu bi fii ci réew mi nonce apostolique bi moom tamit teew na di kilifa gi Irlande teew nañ fi seen ambassadeur Pologne seen ambassadeur teew na fi Pakistan seen ambassadeur teew na fi Algérie seen ambassadeur teew na fi coordonnatrice résidente du système des Nations muy benn soxna muy mbootaayu xeet yi moom tamit teew na ci délégation yi nga xamante ni bii ñoo ñëw ci dëkk bu tedd bii di Touba. ñi nga xamante ni bii ñoo bokk ci délégation yooyu chargé d'affaires bu Guinée Conakry ñëw na chargé d'affaires bu France ñëw na chargé d'affaires bu Palestine ñëw na chargé d'affaires bu Kenya ñëw na chargé d'affaires bu Pays-Bas ñëw na chargé d'affaires bu Nigéria ñëw na chargé d'affaires bu Libye ñëw na chargé d'affaires bu Irak ñëw na ñeneen ñi nga xamante ne dañoo nekk ci ambassade bi di liggéey euh, te yor ay ndomboy tànk bu ci mel ni Éthiopie ministre conseil ñëw na Niger benn conseil conseiller ñëw na Guinée Bissau premier con premier secrétaire ba ñëw na Indonésie benn conseiller ñëw na Tunisie seen benn conseiller ñëw na Suisse seen benn attaché d'ambassade ak beneen ku mu àndal ñëw nañu ñu taxaw tuuti ci wàllu Maroc li ñu ko waxoon léegi délégation bi nga xamante ne bii roi Mohammed VI daf ko yebal muy délégation bu am solo Euh, délégation bi nag composé wu ci nii Sayed Chabar di secrétaire général conseil scientifique suprême mi ngi fi Badir Radi di président conseil scientifique régional de la région de Souss ak Massa moom tamit mi ngi fi Ecojim di directeur de la direction des relations et du suivi ci ministère bi war wàll dotation ak affaires islamiques bu royaume bu Maroc moom tamit teew na fi Haït Aza di directeur de la direction du reporting teew na fi bu Boucheïd benn Chougaf di conseiller ca ministère ba teew na fi Nasser Al-Din Bin Zina di au auprès du ministère moom tamit teew na fi Aziz Abdou Bakar di ab bindkat ci ministère affaires étrangères bu Maroc moom tamit teew na fi Anwar représentant royal El Maroc moom tamit teew na ci délégation bi nga xamante ni bii moo jóge ca réewu Maroc yaakaar naa lii mooy li nga xamante ni waaw ñu may jox ni am na tuuti lu ñu ci war union nationale de associations école coranique euh, imam Mohamed na Sill teew na fi Moustarchidine wala Moustarchidaat waxoon naa ko sànq oustaz Malick Mbaye waxoon naa ko teew na fi Modou Diagne Fada teew na fi Serigne Mbacke Ndiaye teew na fi kon lii mooy li nga xamante ni mooy euh, lu ñu jukki woon rek ci délégation yi nga xamante ni euh, ñoo ñëw ci bésub Serigne Touba bi santale Serigne Touba suñu borom ci fukki fan ak juróom ci weeru safar jërë ngeen jëf jërëjëf ñu wax ni itam sëriñ Alioune Dia bu mbëllëxe teew na fii tubaarkalla ak sëñ Maodo Cissé bu bàyyi amal Cissé pire tubaarkalla ñu ngi fi Serigne Mbuub sa taalibe moom itam mu ngi nii toog teew na fi léegi nag ñu jox kàddu gi ministre l'intérieur Antoine Diome mu xëyee Touba ci kër gi ko sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké wutaloon jébbaloon ko ko kon sëñ Saliou xamoon na lii tey ngir mu mën a teel a dugg Touba moo tax sëñ Saliou dëkkaloon Antoine kër sëñ Saliou la jógee dugg si war waxtaan ak yéen ñun ñëpp ñu déglu ko. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim.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

jërëjëf jërëjëf ministre de l'intérieur xam nañ ni taalibe sëñ Bamba ngi wax de yar yar nga wax ji lool sëriñ Mahmadan Mbakke bu Cheikh Abdoulaat moo yegg ci noonu sëriñ Moustapha mu Cheikh Sidil Makhtar borom guy mbindit yebal sëñ Cheikh Baara Laat rakkam mu toog nii bisimilah sëñ bi ñu rafetlu bu baax sa ñaari doom dañ fee nekk yor ndombay tànk muy sëñ Modou Mbakke Baara Dolli au conseil de la république ak Cheikh Abdou Mbakke Baara Dolli rakkam député sàmm assemblée nationale ñoom it dañoo yor ndoomay tànk sa bokk ci yow. Rumde waa kër sëñ Ousmane Sow rum de ñoom ñëpp it ñëw nañu ab teewaayu Abdoulaye Sylla yabal na fi délégation bu am solo ku ne gis na taxawaayu Abdoulaye Sylla Alcantara moom itam ci màggal gi ñu déglu xasida doog a yegg ci sëriñ bi.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 من دوري والبنيان لخدمة المختار للجنان من ظنني غير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنة من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمة بدا فغره الضلال والإضلال ينقاد لي منه به الحلال مدحته قبل لدى لي برولي مدحا ولا عن مثله كل ولي مدحته مدحا لدى ما ينبغي محى عيوبي وكف الذنب مدحته عند أناس قلوى مدحا كفاني العدا والبلوى مني إليه خدمة قد لازمت روضته إلى القيام عظمت رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سول رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سول رضي عني سبته جيلاني عليه رضوان لي أعلاني رضي عني سبته أبو الحسن عليه طوال يخلد الحسن رضي عني سبته تيجاني عليه رضوان المبيد الجاني رضي عني خلفاء الأربعة حسن رضا المقربين المطبع من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم أيس من الله عند جاولي إبليس إذ فديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأجبد الأسود كدري نفى لغير الله في الدكار كل أذى لي جره مكار علمني الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة برأني الله جالب إلى المناكر أزدر عني الله في كرم بصا قبل مبارسي وعني خلق صا دعاني الرحيم عند التساوم رغم أغنى عن التساوم يسري المنال لي برولي من قاد لي ما غاب عن كل ولي لي قاد البدن الأسودا من زحزح الواشية والحصولة يقول لي حيث أكون الله تبشير لا إله إلا الله ساق لغير الله فيما ينبى ما سعى قلبي وعلى الجنب لله قد وصلت عند القلوى وصاني أما يجر البلوى sën bi jërëjëf sëriñ Omar Diallo ancien directeur de wax na ni mi ngi fi waa kër maam Thierno Dramé ca Ahadulaay sëñ Moustapha Dramé moom it mi ngi fi léegi nag waxtu yu jot na ñu déglu sëriñ bi waaye foo waxe baax na waaye waxe ci bu waxe ci buntu kër sëñ Fallou moo gën ci yow sëñ Fallou la sàkku sëñ fallu moo tax nga am waxe fu ne baax na waaye toog ci buntu kër sëñ fallu sëñ fallu gàpp moo tax nga am bismillah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alqail la in shakartum la asidannakum wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin almarwi anhu qawluhu afala akunu abdan shakura wa ala alihi wa sahbihi saabiriin ash-shaakiriin wa radiya allahu taala an sheykhina wa wasilatina ila rabbina mawlana al-abdi al-xadim ash-sheykh Ahmad Bamba ash-shaakir ashaab as-samaaha al-mashaayikh wal-ulamaa ashaab as-siyaada mumathili ad-dawla wal-xukuuma bi ri'aasati wasiili daaxiliya ashaab as-saada as-sufaraa ممثل السلك الدبلوماسي في السنغال أصحاب السيادة المدعوين والزائرين أصحاب الفضيلة مشايخ الطريقة وقياداتها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فيشعرني أن أزف إليكم تحايا المحبة والاحترام باسم الخليفة العام للمريدية الشيخ محمد المنتقى متعنا الله بطول بقائه فينا صحيحا معافا سليما شاكرا لكم على الحضور المشرف والتفاعل الأخوي معنا في هذا الحدث السنوي العظيم مجل الذي نحتفي فيه بذكرى الغيبة البحرية لمولانا الشيخ الخديم قد قدس الله روحه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 ila aami ithnayn wa tishamiati wa alf fa cheikhu muhammadu muntaxa xafidahu llah yunawihibukum ayuha al ixwatu wal ahiba li hadihi aljuhud almubaraka wa tadhiyat alkabira allati taxamaltumuha mashkurina li taisuu maana hadihi alajwa alrabbaniya almaymuna allati tatafaalu fiha alarwax wal ajsad taxta saqfi al uxuwati al islaamiya alsaadiqa wa tatalaaqa fiha alqulubu ala ardiyati altaawuni walwiam falyaxmadi llahu jalla zikruhu mashaaciyakum walyubaarik lakum fi kulli xarakatikum wa sakanatikum walyaxfadkum jamican bima xafida bihi zikruhu alxakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalal cheikh Mouhamadou Mountakha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 te yaakaar dal ci ñoom ndax wala taxsabanna allazina qutiluu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaquun farihiina bimaa aataahumullahu min fadlihi wa yastafsiruuna billazina lam yaxlaqu bihim min xalfihim allaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun kon mi ngi leen ñaan bu baax njëggalul yàlla ak suñu borom tàbbi leen àjjana di masaw itam nit ñi ci màggal gi waxtu wi mu toll ndax dafa nekk ci biir nawet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 waa aslaha fa ajruhu ala looloo tax sëriñ bi jéggal noonu ak li ñu ko teg lépp te lépp di tooñ gu leer ñi ba tax mu ne afawtu an il aadaai turran li wajhi man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfahum kon nañu xool doxeenu sëriñ bu rafet woowu yi te bañ a xool wala diglu doxeedu keneen te la ci jiitu mooy bañ a fayonte ak keneen ginnaaw loolu yéen mbokki taalibe yi sëriñ bi nee na mu ngi leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay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 kullu nafsin saaiqatul mawti kullu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 te loolu mooy saahir sa te la muy fekki ëllëg moo gën a metti wal ashaabu laaxir asadu abqa la si xabasa fii ndakaaru yaxludu inda man lahu l na ki yàlla mer na ko mer mu sax ba faww inna lasina makaroo fii bi ma taxarrabtu bihi li baksati waajahahum baaxin azizun muntaxim min jaksasin bila intihaa bil muntaxim mboolem ñoo fa doon fexal ci jaysani ngir sànq ma ba atum baksirin yàlla def na jëflante naa ñoom ci torom yu tudd almuntaxim inna allazina axrajuni turra buxdan bilantihan uniro durra mboolem ku bokk ci ñi doon génn ak bañ ma di ma fexeel yàlla teg na leen loolu joxam du jeexati bu faw nafaahumul baaqi ila niiraani na damatin mahal xusaari ñoom ñëpp yàlla boole leen boole na leen sànni sawara ñuy rëcc ak pertaanga bu faw sëriñ bi wax na ne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 jàpp ko te bañ koo yemalee dara ndax waxoon na ci njaariñ ne bu ñu demee ba jëmmi jamono baatinu xasaayid yi baatinu xasaayid yi ñooy ñooy wër di jëddu kuréel yi bépp kuréel bu ñu jëddu gis nga nekk ci sunu biir aw yow ak lu baax ñu maase yëwneel seen biir seen seen aaji di faju te duñ te duñ xam lan moo ko def bépp kuréel bu ñu jëddu ñu nekk ci sunu mbir naka su dul noona baatinu xasaayid yi mooy fenqi seen bopp ya ñu xeex xeexew ci seen biir te duñu xam lan moo ko def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon ñaan yow la sa mag ji Cheikh ni ñaanal boo tàllalee sëriñ Tuubaa ak Cheikh Rafal ñaan ak sëriñ Fallu na ñépp tàllal te fas amiin Mbakke Cheikh Muntaxa yàlla na fi yàgg amiin Mbakke